parrainage bi gars yi ñu leen ci euh, kii bëri na trop ah les chiffres bëri na yéeme na mais ce qu'ils disent mooy ils ne vous rencontrent même sur le terrain comment est-ce que vous faites. Hmm. foofu que li may tàmbalee moom mooy tout tout tout tout d'abord maa ngi jégalu euh, Baara wax na ba sànni ñu xeer yu bëri <laughs> te Baara xam xam nañu sa xeer yi bu dalee rek day bonde <laughs> bal tënk si la day ñëwaat mais nag wax dëgg yàlla c'est de bonne guerre et loolu mooy Sénégal c'est ça la démocratie il faut que au moins kenn ku nekk indi sa idée kenn ku nekk wax li nga xalaat. dans le respect et après on avance c'est les Sénégalais maintenant qui vont juger au moins waaw ah, loolu moom dama ko ci rafetlu bu baax a baax euh, da nga wax sànq am waaw sama doom ndey suñu suñu ex frère dafa ne ñun gisuñu sur le terrain ñun ci terrain bi lañ mës a nekk man je dirais même wax dëgg yàlla pour diir vrai rek j'ai un peu parcouru un peu le Sénégal mais gisuma waa waa République des valeurs gisuma kenn ku ci yor fiche franchement parler ñun suñu dañoo am benn particularité dañoo nekk parti au pouvoir am des tentacules sur les 46 départements du Sénégal te yow loolu xam nga ci dara parce que sa leader suñu parti la bokkoon bokkoon ñi nga xam ne ñoo ko doon dooleel au niveau de Thiès donc 46 départements yëpp dañ ci am ay nit 46 départements yëpp dañ ci am ay ñi nga xam ne des responsables yoo xam ne kenn ku ci nekk dafay wone boppam te loolu moo indi suñu résultat tey ñu am ni 3 millions 700 et quelques. c' est pas 4 millions encore une fois kenn taxaw fi ne 4 millions 3 <laughs> millions 700 et quelques parrain la dajalee. près de 4 millions. waaw près de 4 millions donc nan la ko dajalee moom mooy dañuy fexe ba au moins responsable bu nekk euh, dañuy ñëw jox la par exemple 10 fiches. yow responsable di nga dem fekk c'est yeneen lieutenant nga jox leen benn fiche nga fiche yomb na remplir mm. franchement parce que tu au Sénégal loolu sant yàlla lañ ci lañ koy def nga dugg gis benn kër mu am 10 pièces d'identité cela ne veut pas dire pièces d'identité yëpp yow la ñuy voté am na ñuy voté euh, Pastef am na ñeneen ñuy voté PDS am na ñeneen ñuy voté mm-hmm. donc parrainage bi yow mën naa la parrainer te du la voté ça aussi c'est une réalité man du wax loo xam ne euh, naka sa xandang la parce que Sénégal lañ nekk mais ñun ñu ñu parrainé c'est des parrains yoo xam ne vraiment yu yu certifié la yu solide yoo xam ne on avait même pas besoin di def ay caravane on avait même pas besoin di solal ay nit t-shirt pour ñu dugg ci dëkk bi y deux euh, koo xam ne mën naa ko seede au niveau de Pikine Nord moom laa mës a gis euh, muy monsieur le maire Amadou Diarra c'est un mm-hmm. ami je le salue au passage moom rek laa ci gis mu dem def VSD ak ñeneen ak ñeneen yenn responsable ñu def ay VSD de parrainage def parrainage populaire te loolu li ñu ci mën a jàngatee moom mooy candidat bu nekk buy ñëw di dem à la rencontre dafay am looy indaaleel sa bopp mm-hmm. dafay xam nit ñoo xam ne bëgg nañ Macky Sall mais Amadou Ba am na ñeneen ñoo xam ne bëgguñu Macky Sall te Amadou Ba lañ bëgg ñun dañuy rencontré yu mel noonu ñoo xam ne dañaa ñun Macky Sall sax mosuñu ko foteel mais si c'est Amadou Ba damay engagé wu donc parrainage loolu tax mu yegg ci niveau bii nii mais ñun duñ ci concentré wu parce que loo xam liggéey étape la boo xam ne dañu ko waroon def def nañ ko étape bi ñuy suñu deuxième étape fi ñu war a jëm moom mooy comment convaincre les parrains en électeurs. Mmh. ci moment boobu lañ toll pour l'instant nii mais suñuy 3 euh, millions 700 et quelque ku ci bëgg am doute mën nañ la renvoyer nga dem ci siège bi tu vois les cartons boo amee sa jot nga calculer sa bopp compter sa bopp tu vois les départements les communes les villes et les yi nga xam ne ñi ko doon parrainer parce qu'il y a une traçabilité sur chaque fiche de parrainage mm-hmm. képp koo xam ne dañ laa jox fiche nga dem parrainer yéen gis ngeen ko ndax pratique mm-hmm. nekk ci des milliers de fiches et eh, dafa am loo xam ne man mën naa ko d'accord. Mhm. kii mën na ñëw waa MPR ne ma am na ñoom euh, quatre-vingt-dix-huit mille euh, parrains mais du ma leen ko weddil. Mhm. mais je les pas sur le terrain la moo que j'étais j'étais pas au cœur de mhm. donc mënu ci am doute lenn dong la ñuy la ñuy ñaan sénégalais yi bu dee ñun à de notre moom mooy képp koo xam ne pare parrainé nañu. ñu ñaan lañ ñu votel ñu. képp koo xam ne parrainé woo ñu tamit ñu fexe convaincre la pour nga votel ñu. si état boobu lañ toll beneen bi. Euh, je crois que kii euh, Baara daf ko wax. Mhm. nee na parrainage bi ni ñu koy defee nii baaxul. moi je crois que yow yaay seul opposant bu ne parrainage bi ni ñu koy defee baaxul. parce que li tax ma ne li tax ma ne la yaay seul opposant bi tey jii nii Sénégal ñaata nit ñoo jël fiche de parrainage de deux plus de nit te yow am na ñoo xam ne jël nañ fiche. yow boo wéetee waxal yàlla donc da nga naan kii la moo tax mu yab ñu bay jël fiche. Mmh, bëri na ci am na si mais parce que parce que yéen a créé un système. ah bëri na li la koy wan. baara bàyyi ko dem baara bàyyi ko dem baara bàyyi ko dem CDD CDC. baara dagguma kenn kooku bu parrainage amul woon doo ko dégg. ça c'est vrai je suis tellement sage aujourd'hui ba dagguma kenn. ah baara bàyyi ko mu yàggali baara laisse la terminer. am na ñoo xam ne tey jii nii yow soo wéetee. Mmh. te yàlla rek tax. di nga xam ne naan ñii dañ ñuy fonto bu tax ñuy jël fiche de parrainage parce que tu sais qu'ils n'ont même pas la capacité ni la légitimité ah populaire pour mën a sax dem dagaan baatu askan bi parce que wanewuñu ko ci seen i jëf ci élection yi donc ñiy dem ci élection ñu bëgg a def seen promotion parce que ñun ñëpp xam nañ dividende yi ñuy wër moom mooy fexe di xalaat benn deuxième tour pour après ñoom ñëpp ñu renverser benn côté et filtre bi nga xam ne moom mooy filtre parrainage bi nekkul da ngeen dugal conseil constitutionnel automatiquement on te rejette déedéet même si on te rejette on donne au moins la possibilité de euh, d'avoir un recours